c'est tellement évident que sax da waxaat parce que on a on a vu depuis euh, depuis le début hein, qui n'est pas avec moi est contre moi. Mm-hmm. président loolu la xalaat. Mm. ku àndul ak man sama noonu la. moo tax ñu ne arrêté pour ay ay ay ay post Facebook man dama laa jot benn vidéo boo xam ni benn ancien député bu ñu jàppante ci affaire xaalis mais c'est un scandale sans nom mujjul fenn. mujjul que actuellement nii ku mel ne Bassirou Diomaye fay qui a fait un post Facebook. Mm. depuis le mois d' avril. koor ba léegi ñu ngi ci kaso bi. Mm. léegi avant ko corsé ci ay affaire u attentat yoo xam ne. Ah. daal ah. koy daal def jonction ak dossier Sonko. bon Sénégal da ngay mujj tiit parce que tout est a à outrance et puis sans état d'âme man dama jël gën a sax euh, métti mooy amatuñ sax kersa ak tuuti xalaat ak yërmande amul éthique amul morale man malheureusement moo am moo tax opposition bi. yi ëpp dañuy xaw sax euh, am xel ñaar am xel ñaar nga xam ne tàmm nañu confort sa kër ak sa bureau ak sa yenn c'est des grands bourgeois ñu si ëpp bu ñu tax jël yenn risques yi. parce que à tout moment tu peux être en prison. Mm-hmm. moo am et puis da lay fàtte on t'oublie ku mel Manga le petit parce que Toussaint Manga dañ ko oo en même temps que euh, Ngagne Demba Touré ñu leen kaay leen le même jour on les a convoqués pour peut-être les mettre en prison. Mm-hmm. Toussaint il a été très euh, républicain daal di dem wuyu ji ñu ngi ko dugal ci kaso bi tëj euh, ngañ dema tudde sa sànq deme dañ koy tëj mu daw il est en exil actuellement au Mali dafa ñaaw que de façon systématique ñu tëj la détention préventive sans limite de l'instruction mm-hmm. parce que dafa war am loolu su dee des cas précis comme ça su bëggoon da ngay a def sanction pour du mën a danga war a def loolu ñuy wax euh, comment dire jugement bi gaaw nu ñu koy woowee encore en justice. non non justice boo xam ni flagrant délit. flagrant délit la war a nekk. ñu juger la mais da lay téye de façon délibérée. Hmm. fàtte la kaso mais loolu c' est des façons de sanctionner de punir quelqu'un loolu moo am Sénégal depuis quelque temps pour les opposants euh, déclarés yoo xam ne dina amoon. maanaam ni ñuy fowee ñun di wax tout le temps waaye réew moo xam ne lu neex waaye def wala genre yooyu loolu la daal ku mu neex daal fu loolu neex nga def bu dee da ngaa ànd ak man ça va surtout nguur gi bu la neexee def lu la neex waaw ah, léegi nag dans ce contexte là dëkk bu mel noonu nan la fi booy di toogee ah,